de Diomaye Faye est-ce que ça a été une surprise pour yow. oui bon effectivement ça a été une surprise parce que d'abord euh, ni élection yi demee d'abord un mooy euh, élection yi ça a une surprise. Mm-hmm. mais quand même la perte de pouvoir de l'Alliance pour la République ou bien de Benno Bokk Yaakaar bokkoon na ci éventualité yi nga xam ne doon naa ko sóoraale. mais dama doon li demander toujours euh, aux gens avec qui je travaille nañu travaillons pour je suis dans le peuple maa ngi dégg nit ñi maa ngi gis je sais que Macky a fait beaucoup de choses il a réalisé beaucoup de choses mais nee nañ moo yàqal seen candidat aussi malheureusement malheureusement malheureusement les Sénégalais ils écoutaient plus waa Pastef ils croient à Sonko mm-hmm. euh, comment il a fait pour les convaincre et puis xale yi gëm nañ ko ça a commencé depuis 2019. waaye ça commencé waaw waaw muy muy yéeg. Mhm. nga bañ ko ah, mu voyait venir ah mu mu mu yéeg. que mu def erreur mu ngi yéeg que mu bañ def erreur. mu ngi yéeg donc on voyait venir alors lan moo mënoon bouleverser loolu. que d' abord que euh, le Benno Bokk Yaakaar alliance bu la République ñu nekk benn ba d' abord. Mhm. ce qui est ce qui est difficile. ensuite Amadou am le temps de communiquer. de mhm. parler au Sénégal parce que Sénégalais avait euh, li ñu bëggoon dégg ñu ne changement mun na am mais ci nii lay amee. mais Sénégal yi bu ñu woon dégg nañu doon demee noonu la ñu demee. il a tardé à prendre son envol ah non seulement seulement non seulement non mais il fallait que mu prêter allégeance au président de la République. et c'était ah, une hmm. position qui est extrêmement inconfortable ça c'est vrai il devait bénéficier quand même avant la campagne électorale d'une période de pré électorale. Hmm. pour mën a expliquer aux Sénégalais. jël euh, joxe empreinte boppam. loolu amu ko. mu war a ensuite bu loolu amuloo ne mu war a daba ci 21 jours de campagne 21 jours de campagne amuñu mm. amu ko. mu après mu am 12 jours de campagne 12 jours de campagne yi. gis ngeen lui a ravi la vedette. parce que les oh! dernières décisions yi Macky Sall jël sax moom a commenter que que son candidat. non c'était extrêmement difficile. Mm-hmm. avec euh, le dialogue national yeneen ak et tout ça la loi d'amnistie tout ça. Mm-hmm. loolu moo doon ravi. de Macky que donc amul n'a pas fait de campagne parce que aussi tribune bu mu mënoon waxee ci campagne électorale bi ni ñu di ko Ensuite, la, la prolifération des candidats. On est passé, Mamadou, de 5 candidats à 19. Ouais. 3000 am 1 pour cent. 4 candidats mais doo am visibilité. waaw que 4 parce que élection 2019 li arrangé woon Macky Sall mooy da am visibilité tu as 5 candidats. Mm-hmm. da am visibilité ba loolu amul amu parce que 5 candidats mu mu ngi leen déglu. ku def erreur nga xam ko. ça c'est vrai yooyu yëpp c'est les circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui Amadou vraiment c'est extrêmement de soutien aussi de son parti de sa formation politique manque de soutien et tout ça ak yoo xam ne mënuñu ko wax kenn kenn xamul personne ne comprend maintenant que lan ci bopp président la République mu def ko xam mhm. c'est le secret de Dieu qu'est-ce que Amadou a fait on ne peut pas savoir donc il avait un meilleur profil que Diomaye Faye mais les Sénégalais ont choisi

yokk na donc y a eu un bond de deux mille deux mille et quelques morts. la moitié donc donc y a eu un bond amul mais malheureusement euh, euh, euh, taxawu Dakar. amul dara amul dara Idrissa Idrissa amul dara. Mm. pur lu amoon pur lu yaakaaroon qui a qui avait une assise. Mm. dans commune feeñul ak kenn kenn kenn. les autres moom ils n'ont même pas eu 1% voilà tout jël ko. Mm-hmm, loolu la donc les Sénégalais on on on on ci régime bi ils voter utile.